te wér. waaw waaw. gars yi dañu dégager xàll bu ñëw waay. jërëjëf. jërëjëf. quoi bu mu romb parce que xool avance suñu ñu ñëw ñu ñëw mu ngeen mu topp yéen ngeen di ñëw ñun dañoo war a taxaw mu romb rek ah mu romb jàll waaw ñun ñu jërëjëfati Serigne Béthio jërëjëfati ay ganam mbooloo mi jërëngeen jëf na ñëpp yem dal sama staff seene war taabal yi kenn ku nekk mu saafante ak yow ndax ñu fi néew lépp moo leen tax a jóg nag def ndànk da ngeen di def da ngeen di toog da ngeen di toog non Sir Ndiour imam Babacar Ndiour imam Babacar Ndiour bu grande mosquée bu bu sant ñëw na avec une forte délégation. waaw ñëwoon na waaw sëñ Jili Fall aussi ñëwoon na sëñ Jili ñëwoon na ak délégation bi. waaw moo taxoon maa ko woon boo. def nañ fi deux heures de temps ci suba ak man ci kaw fële ci kaw na la. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ ma kii Diop nu mu tudd. Assane Fall Dabay. waaw. sëñ bi Cheikh Ibrahima Fall sama xarit la ñu ànd. dëkk sama xarit la ñu ànd ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm te yeesal suñ kóllëre ak yow di lay ñaanal yàlla mi nga mën a aar yàlla na la aaral boppam ba li nga bëgg a liggéeyal sëñ Béthio nga def ko ni nga ko bëggee ci barke sëñ Touba jërëjëf. jërëjëf suñu xol seet ñu baax sëñ Baara Mbacke bi daaral bi jàng nañ la fanweeri kaamil ak ñaata sortu Yaasin téeméer envoyé woon na ma message bi bu yàgg te daara ji tëkkuf di wax soxna Modou Thioune kii magam la lépp baax na yàlla taxaw ci barke Cheikh Béthio ci barke Serigne Saliou yaa xam li nga bëgg a liggéeyal sëñ Touba yàlla na la ko suñ borom defal ci barke Cheikh Béthio nag ci barke Serigne Saliou as gor nga ku mën a teral nit nga te teral nga nu nag nit nag boo ko teral teralee tëral ko Touba lan bàyyi koo nag da as gor nit di teral ñu ànd ak sëñ Mame Mbaye Niang mii ñun nag dara mënuñoo yëkkati lu dul ku bëgg sëñ Touba rek ñu sant Serigne Saliou Samb mii nag ndax suñ mbokkum daara la sëñ Saliou Samb mii suñ mbokkum daara la di suñ mbokkum Jurbel bëgg lu baax lool ñu di ko sant xam-xamam lu nañ ko ñun doomi daara yëpp daal sant nañ la bàyyee koo xel xom nag ànd ak sëñ Muntaxa ak bàyyi laat Samb mii taxawu nanu ba léegi moo nu jox fu nu atal ban nekk moo nu fa dalal ah gars dañ lay felle dafal ni dafal ni dama dama gis ngeen li nga xamante ni moom mooy euh, bernde bi muy ndogu royal soxna Aïda jàllo moom mooy génnoon di saafonteeg ak invité yi waaw mu ngi noonu di saafonteeg ak invité yi ànd ak euh, ñaar ci ay euh, ay ay ay bantam maanaam ay doomam kon mi ngi noonu soxna ay Diallo ngi noonu dafay euh, wéy rek mi ngi noonu di saafonteeg mbokku taalibe yi muy mbokku taalibe yi nga xam ni ñu si bari ay invité lañu ñëw ak ñi nga xamante ni ñëw nañu bëgg a fekkee bés bu tedd bi di 17 avril ndajëpp moom Cheikh Béthio ak ku tedd gi Serigne Saliou Mbacké soxna Aïda Diallo gannaaw bi taalibe yi ndogoo ba noppi génn na ñëw ci askan bi wala boog ci taalibe yi di leen nemmeeku di xool ba xam toppatoo nañ leen bu baax ñu ngi dégg ci ay kàddoom mu naan mbaa toppatoo nañ leen bu baax léegi nag ñu ñu déglu quelques kàddu rek mbaal maa ngeen gis ngeen noonu soxna si mi ngeen noonu di waxtaan ak ñenn ci ay invité ñenn ci ñi noonu di saavonteeg ak gan yi. gis ngeen euh, tamit euh, ñuy rafetlu bu baax a baax ci matukaay yi nga xam ne jël nañ ko ci wàllu kaaraange tamit macha allah invité yaa ngi noonu ñëpp ñi ngi wane seen mbégte que ci bés bu mag bi bésub 17 euh, avril xam ngeen ne kenn dootu ko fàtte waaye tamit bu ñu defee ndogu far yàlla mu tombeek gam mu tombeek li moom mooy weeru koor ñu ndogu ba noppi def ndogu bu am solo gileem ak nag ak xar ginaar dara manqué wul dara manqué wul tarkalla ak naanukaay yi café yeeg meew yeeg ah boisson yeeg ndox meeg lépp mat na jërëjëfe cuun jërëjëfe euh, jërëjëfe soxna si lépp mat na macha allah. doo ko am bëri permis di la toroxal lu ñu wax ñii ci man lañ nekk ci ñeneen la ñëpp

mu ñëw gàncax gi mu ngi. jërëjëf Serigne Béthio jërëjëf